comme bési ñaaka du bési ndam waaye comme dafa fekkoon ne ñun dañ xeex ba dog xaw ma na understand dañ xeex ba dog ke comme football comme yaa ngee football ba dog noonu leen doon def dañ football ba dog time final bi force final bi comme direction yi bi dafa sotoon soo ma bàyyi xel suma interview bi ñëp déggoon nañu mais leen waaw bii moom maa ngee congrats team bi waaye dinaa delluwaat si drawing board bi pour rectifier suma mistakes man lii laa waxoon so first final bi moom bés boobu noonu suñ noppale ko woon three weeks sax du woon suñ bés bési bési ñaaka moom du bési ndam waaw bési ndam tamit du bési ñaaka noonu la demee woon rek first final bi moom ñaaka bi moom du kenn dañ waroon a ñaaka rek lu tam lu tax bi dañ ko waroon a ñaaka rek Heart of Banjul they were the better team ñu win ñu so ñu ñëwaat second final bi ñu dem ñu rectify ñu win noonu la demee. ah fii moom dinaa fa mun a wax comme buñ ñàkkee final bi comme dama foogoon ne a rébellion persévérant laay ñëw fekk si waaye dama ñëw fekk si ab persévérant bu tranquille comme ñu accès rek comme team bu nekk dafa am mag yoo dee déglu soo bu mag yi ñëwee wax ne comme yàlla xañ na leen bii du leen xañ beneen bi soo faan si yëpp ñu teg ko in good faith dëgg la wet bi moom woo so long am na ñu jooy man fiil naa ko am na ñu am lu leen naar suma players yi tamit. am na ñu si amoon lu leen naxari waaye ma ñëw ekkati leen rek motiver leen leen rek ne leen benn ñàkk ne gis nga si following week bi ñoom ñëpp a ma jiitu si training ground bi kon nga xam ne ñooñu noonu bëggoon nañ ko after bu ñàkkee final bi players yi ñoom seen boppa si following week bi ñoom ñoo ma jiitu training ground ma ñëw fekka leen gars yi ngi prepare ba gars yi ngi well prepare comme seen mind bi fàtte nañ ne bële ne le passé na am na bu des àddina noonu la rek su la yàlla xañee fii rek dina la may feneen lu si laxasu woon waaw positive mindset la rek xam nga kon comme for exemple nga doon yow nga doon dem uti ji dara nga ñàkk ko te yow nga amaat second chance second chance in life naka la ko nit dee defee da nga ko dee grab with both dañ xamoon ne tamit ñu war a dem ñaari final ñu ñàkk ko soit kañ fan lañ ko winatee fan lañ ko amatee xamuñ di li si kanam ñun xamuñ ko di yow lu teew rek lañ xam dañ amoon ab positive mindset rek. loolu taxut ñu wécci dara si suñ système système bu ñu demee foos final bi système boobu leen demee si second final bi te te système bu ñu doon play football système si football moo am système amul si football football mooy système football bu ñu doon play football bu ñu play si first round bi ñu ñàkk ko dañ si tweak rek first final bi ñu demaat second final bi ñu continuer yàlla def ñu ñu win buñ dooree man mun naa laa wax suma team toog sax loolu noonu jarul man na boo ko fi it was a it was an inspirational team talk dama ñëw rek wax ne ne dem na ñun dañ fi ñëw tey pour make history te nu ñu war a make history mooy dañoo dem go ñu grabe de trophy ma ne leen yéen a xam nag noo leen ko winee ma ne leen ñun yéen jaja jafal leen si biir ñun ñu jafal si technical beñ bi loolu la rek noonu la rek it was just positive mindset lañ si demee rek. demee wuñ fii ne dañ naaw wala dañ jógee from space wala dara dara ceeñut dara dara dara ceeñut dara dara dara moo si ceeñut si a ah, ah, first final bi second final because yëpp ak strong mentality lañ si demee first final bi we we are not lucky après maa ngi congrats Heart seen coach bi Jaboy ak seen entire team bi ñu ni ñëpp ñu ni ñëpp waa waa Banjul ñun ñoo doon play mais bi at bii nii we we not the better team ci nawetan bi comme bi we are the luckiest team rek ñu dem ñu play suñ ay football ba lifin amoon nañ tof tof challenges along the way ñaari team ci yeb amoon nañ tof tof challenges te ñun ñaari team ci yeb ñun ño nekk doomi ndey ci bij bi ñom ño dee traîner fi ñun fi Lancaster fi, non la demee <laughs> waa laxasu comme naka lan moo si laxasu xanaa du won football yo bi nga démé si park, yo gisulo football yo, wa football nga don gis waaw léegi nit yi ñu ne lan moo si laxasu comme lan xanaa Keeba dafa ñëw comme jinne wala ban xar fa xufa waaw loolu tax na nit yi xanaa kon gaa ñu problème moo tax ñun caaj nañ ñu eighteen thousand man gisuma xar fa xufa man amee ma woon xar fa xufa waaye nawetaan ñu ko dee omba mun loo dem si ay nawetaan nii nii nga ne yow doo fa gis kii di def yi fi majig yi fi Afrique wala yi fi lii loolu du danaa daf dee ñàkk si nawetaan mus ngaa dem nawetaan depuis buñ ko dooree di seetaan ba de dooree dégg ay waxi ne paa bi jaar na fii wala kii def na lii wala ay score de lii yëpp dégg nañ ko fi te dañ leen dee score affaire yi billahi it was total discipline force a train nga fit nga dem nga play man at bi ni laa am di least experience player si nawetaan bi yow xam nga si dara parce que last year man usoon na ay six seven to eight xaw ma nine players matured players man at bii nii ñu bari at bii la gaay def seen début si nawetaan yow ku score last goal bi si final bi bii mooy second iam play na laas year waaye ñu bëri mënuñ ko woon a ràññee xëy na at bii nii la ko gaay gën a ràññee waaye loolooy maturité moom jógee na si état bi comme first iam second iam mu gën ko bugga so loolu la rek du dara loolu la rek football is all about that boy soo demee si world football fu fu gay sa world football so fa demé sa daf la den day xamné ne comme positive mindset discipline determination loolu noonu rek mo mo fa nekk because of comme dem train wetan team tu wa ya ma gina xam yombut understand parce que ay halel nga de dem nga boole leen waaye comme secret bi moy dang la na try ñom ñep ñu xamné ne ku nekk is a brother's keeper understand ku nekk da fa wara nekk pour moromam comme nawetan loolu la dee demee comme nawetaan daf laa inculquer nga am discipline nga xam challenge yi football nawetaan man mun man man dama dee wax ne couplé nawetaan Gambia national squad wala squad wala professional level du la dee cóog parce que nawetaan ñi ko dee seetaan ay thousands leen daf dee aga thousands nawetaan ñi ko dee seetaan ñi ko dee folo daf dee moo ëppa si football bi pression nawetaan li nga koo fiile dafa mel ni yow muy play sa national team rek soo nawetaan bi na si ñëpp jàppa rawatina comme comité bi ñu def ko à level playing field mu rafet comme ñëpp gis si seen boppa understand après maa ngi ooj suma morom yi yong coach si ak yeneen team si as far ne comme comité bi discipline la gaay di emphasize ñun ñu try ñu joxe discipline one thousand percent understand ba kenn du am fu mu la mun a waxee ne nii la demee wala ne la demee wate maa ngi ñaan comité bi tam su ñoo fine tam na nekk lu gars yi justify ko understand su demee ba métti su team use protocols gars yi di ko déglu di si listin ñuy waxtaan booy ñun naa comité bi benn leen ñun comité bi suñ ay role models ñoo fa nekk ay father figures man si ñoom laa dee rootee si ñoom laa dee taataane si ñoom si seen ay loxo leen jaar ba ñun aagaaguñ fu ñu war a aaga noonu ñu ngi leen a comme ooj rek ne ñoom ñu understand ne ñun ay ndaw len dañoo tooñ souvent ku dul amut dañoo togn waye tam suñ togné ñu ñoo understand rek ñu am mutual understanding waye comme discipline nak, mu nekk di moto, lolu mom maa ngi committee. man lima nekk ko ji wa comme naka luma def man defuma dara di yo demal nga set si leta si yeb na man mus nañ won woon comme at bi ni so démé si record nga dem si ah, record si at bi Namus mus nañ ma won degal yo ya nge jël keeba bu amoon temperament war na la lo dafa change boy man amat different keba Senghor because of time bobu non comme hadar la duggee won ci mbiri coaching man dama foogoon né yifi coaching da yëpp mer la waaye amna mag bu ma toogal turam mu explainal ma waxal ma ne ma li ni so ci néké da nga nango muñ nga am understanding yo nga base sa self yow si li nga liggéey nga gëm ko nga am a positive mindset rek nga dem at bi Warriors win cup bi destiny la woon rek nekkul ne Keba is immortal wala Keba is somebody else is the same Keba Senghor bi nga xam mais bi a bi bit of rek nit daf dee mag man maa ngee mag xëy lu des kay mooy li nga ma dee tooñe ne ma takal jabar dinaa takal jabar <laughs> kon Keba amuloo loolu laa diggoon gaay na waxoon naa leen comme su ma winee kob dinaa takal jabar waaye jeexagut jeexagut dinaa takk jabar am naa ne foofu noonu moom foog nga jëm faa duga <laughs> Banjul suñ waree winaat national dañoo delloowaat bum ca mboy mboy ba waaw mooy de mooy mag yi ñoom ñoo ko xam ñoom ñu xamoon yooni win zonage fanaa Banjul bu ñoo mujjee win zonage ñoom ñu ko mujjee woon a win fanaa ñoom ñëpp retire ñoom ñu ko waroon a win fanaa ñoom ñëpp retire nañ waaye Banjul suñu waree winaat zonage mooy nañ tiif rek ñëpp di xàcceendoo di dóorandoor understand ñu pick di required players yu ñu war a pick ñu competitive enough ñiñ fiil ne comme ñii mun na laa jox dara xam nga year before last fanaa three years back demoon nañ final ñu ñàkk ko understand et peut dañu war a xam ne yeneen zone si ah ñëpp a ngee développe si football comme football ematut greater Banjul area bi yëpp rek football mu ngee mu ngee evolve mu ngee mu ngee at a very so ñun léegi ñun Banjul xam nga lu ñu war a xam ne ñun ñoo war a dem dabu dem dabu xaw ma na olof bi ñoo war a dem dabe xaw ma dabu xaw ma ban olof laa war a yus ñun ñoo war a xam ne comme léegi ñun ñoo war a dem riitee ji pour dem jëli ji baatin bi because affaire yi génne na suñ loxo dëgg la ñun ñooy record holders yi xaw ma ñun ñoo Serekunda is if my memory serves me right wala record waaye ñun ñoo war a dem dabu so suñ waree winaat zonage dañoo ñëwaat put everything together understand di required players ñu pick leen di required technical staff ñu nekk fa bii nekkul suma foos year journals bii mooy suma third year journals because man jamono Aliou Diagne laa fa nekk ma liggéeya Boya ma liggéeya Major waaw last year bi tam demoon nañ ba semi final we were not lucky enough Serekunda is we are the better team waaye comme at bii nii comme si experience journals bi ma am is one of my difficult difficult moment waaye tamit ñu ngee jégalu su di entire Banjulians understand comme nga demoon uti ji amuloo taxut na yow it's over it's never over football du dee jeex it's over when it's over but it's not over yet understand mun nañoo dem recyclaat rek ñu ñu toppatoowaat suñ boppa rek ñu prepare very well rek ñu xaacee ndoor ñu dóorandoor soit man daal man suma advocacy mooy nañ booloo nekk benn rek suñ booloo nekk benn lépp dafa dem comme fan yi jappé comité bi ne ñi ñoñu fi nekkal ñun coach ci ñu jappé comité bi ne ñi ñoñu fi nekkal comité bi jappé coach si seen doom embrace fans, si understand ñu bolo ñun ñep ñu dem ñu xaacee ndoor ñu dóorandoo rek dina so soa Banjul boy one of the best talents si footballers yi ñu fi halé yaa fi bala nga ko dé xam demal ci tan bi wala Gambia hay wala ay sense ni ngay warga warga yow yang am ay académie yo yaa gis comprendre talent si te yo sa academy players yo non mën nañu proceed dem duga si nawetan bi toj fa te amna na xamne ay five six players yo xamne man identify na len ño xamne mën nañu duga ci si any nawetan team neka estata te from sa academy bi len joge et peut être comme academy buñ ko ray academy dafa wara neka lu wara a bari Banjul understand academy mo la lay jangal football fi ñun ñu bari football duñ ko dee nango jang ñun football natural talent la waaye comme natural talent su nekkee si yow da nga koo développe parce que lépp du dee du dee mat football la every day football every day life la every day da nga si war a nekk you eat football you drink yu you sleep football understand sooy nelaw sax da nga war a sleep with football nga xalaatee ko sooy lekka nga xalaat football la laa wa soo buggee nekk réel réel réel football a wa loolu noonu sax daf daan bokk si côté soni FIFA yi loolu daf si daan bokk you eat football you drink football you sleep with football football. man dama daan dégg benn time dama tudd turam Sandong mu ne football la sax dafa da nga ko war a bugg ba sa sallal bi sax da nga ko fa war a teg football mu nekk sallal bi soo buggee ne a real real footballer la waaw. right now nawetaan dina am a ah, ñun dégguñ benn communication di parce que na Covid 19 moo fi nekkaagum waa man gis commune nawetaan maa ngi hope for a better nawetaan. both in terms of organisation committee bi in terms of good football good refereeing yëpp si football la bokk good atmosphere boobu noonu fans yaa ko moom understand et puis comme na fans di muñal team si comme fans fans they are too waaye mais bi looloo de yow football waaye ñoom foofu la seen xelaat tool comme ñoom maa leen ñaan sori ñoom ñuy understand rek comme affaire bi nekkul ne yow sa alal la rek lu nekk nga ko war a def. tiim bu nekk am na protocols team bu nekk am na norms and values am nañ luñ bugga am nañ luñ bañ understand nga jàppa si tiim bi si lu mu bugga ngeen mun a dem su coach bi su tiim bi tànnee ne coach bii la yéen ñëpp ngeen jàppa si rek ngeen support ko du dëgg mu ànda mu dem mu neex be soo leen dem demoon uti amu leen ngeen xam ne yàllaa leen xañ rek soo leen demee uti ngeen am ngeen santee ko yàlla du noonu ñaata tim sa nekkoon si nawetaan bi ñun ñëpp a door a ndoor di du dëgg ñun ñëpp zéro point mais bi yàllaa waxoon ne Heart of Banjul ak FC Warriors at bi ñooy nekk victorious waaye amoon na ay previous previous winners yu fi nekkoon noonu la rek football moom at bi maa ngi hope for a better nawetaan understand comme as su ñëwee si comité bi ñoom ñu seet seen reha reha loolu noonu is part of committee nga seet yow fi nga xamee ne yow yu fall short understand nga adjusté foofu noonu tim si tamit fu gaay foolee short in terms of discipline ñu try ñu regulate loolu du dégg teams yi fu guys foole shot in terms of defeat guys try ñu regulate loolu understand buñ nangoo indi benn problème ñu jàppante rek ne affaire lii nii yi fi papa doom la rek mu jeex tak loolu la rek yow suma diggantee yow moom comme ay interview boolewuñu comme su ma ko fi dooree di wax ñu bëri duñ understand bala ñoo daata dugga si mbiri football sax comme family doxoon na ej na géej a gisee bi la woon after ma dem Kombo yow nga des fi bañ ñëwaat waye suma diganté yow mom comme sotti see def Degala la rek dëgg duñ dan jubóo ci football dañoo nekk ci technical benn sa ñu xuloo nga mer mat kam la ma mer nga kam waye yoy nonu yeb ci si spirit game bi la lolu mom yalla ñu bolé ma la gërem di la santa di la ñaanal yalla yokala yalla samala yalla arla bu baha baha ba aksa yow ak sa cameraman